kon mbokk kii dégg ngeen yaay comme ni ma ko waxee léegi sas wu rëy metti na tiis na lool ndax yaakaar la amoon ci moom waaye mbir moo gis saa su ne des koy waxtaanee te penc moo gis am na ci ñoo xam ne am nañu ndomb tànk gu doy waar goo xam ni mën nañ cee yëkkati kàddu loole moo waral tey ñu daal di ànd ak ki nga xam ne moo di Lamane Maguette Wane ngir mu waxtaane yëf yi ak xew-xew bi ak yan taxawaay la ci Lamane am. waaw lii nga xam ne xam nañu ko ci mbëkk mi. ak li waral suñu doom yi ak suñu frères yi suñu sœurs yi euh, di jël gaal yi di dem mbëkkam dafa am benn euh, mbir bu ko sabat lépp bi ci jiitu mooy ñàkk ndax lébu du ñaan lébu liggéey liggéey faj soxlaam la xam mag ñi wax nañu ne fu waay masaana jóge di dugg cap lébu yi ñoo lay dalal jox la kër may la soxna daggal la tool lébu rek moo ko axtanoo di ko def waaye jamono fi ñu toll nii dañu maye maye maye maye ba amatunu dara amatunu dara suñuy doom ñu ngi fii nekk ci dëkk bi xam nga nga jur sa doom mu war a tekki jàng amul place liggéey amul métier amul fu mu dugg pour liggéey tey lii nga xam ne nii tey xale yi ñu ngi koy liggéey fii métier boo laal métier boo laal am na fii Thiawlène métier boo laal rek boo ma proposé wax ma rek ma ne la diw mu ngi koy liggéey ci Thiawlène mais métier yooyu xale yi métier boobu métier ñuy liggéey soo xoolee lañu cay am mënul sax yor seen waa kër parce que dund bi metti na vie bi cher na euh, xale yi am nañu ay soxna amuñu lu ñu jàppale seen soxna yi bay jàppale seen i wayjur léegi nag su nit tëggee bu ñu gisee gaal goo xam ne nii dañ ne day dem bitim réew te ñoom ñu féete ci wàllu géej gi suñu xoolee ci kaw tàppe fu ne ñu tàppe fa fu ne ñu tàppe fa gauche tàppe fa droite ay promesse rek la ñuy am ci place yi nga xam ne nii dañu fay dem di liggéey wala ay promesse la ñuy am ci place yi nga xam ne nii dañu am seen i diplôme dem ko déposé ko fa di fa liggéey wala que ñu jël leen ñu doon ay stagiaires yóbbu leen foofu ñu def seen stage te du ñu leen jël ñu liggéey ñooñu bu ñu demee ba jaaxle ba jaaxle su ñu gisee gaal guy dem Espagne wala gaal guy dem États-Unis dañu ciy dugg